muy destin ndax àdduna moom kenn du kenn du romb sa destin yàlla ku ku dem rek euh, yàlla am na ci lum ko jaarale ñii ci feebar ñi ci euh, ci loxo nit kon nag euh, yàlla na ko yàlla xaree aljana di ñaan li yàlla na fi gëj te ànd yi di gën a dëggu di gën a sincère parce que nit ñi ñëpp ragal nañu léegi kenn xamatul euh, où allons euh, parce que soo tëddee guddi sax yaa ngi xalaat euh, sa say ñooñ ak say ànd mhm. donc ndax dëgg nañu wala li ci kon nag yàlla na yàlla may yaayam xolu muñ may ko association bi may ko képp rek koo xam ne yaa ngi national international dama koy jël mhm. mu lay tagg tagg bu fort ban relation maa ngi nekk Luxembourg mu message ma mhm. di ma xamal ne euh, cofeelam ci man euh, di ma baalu àq euh, ci tabaski bi di ma xamal ne yow sama référence yi nga bokk sama idole nga dama la bëgg sama xol defe naa ne mi ngi ci internet bi nit ñi liir nañu li Aziz wax ci Oumou Sow ndax bés donc bu jotee xëy na dëj bu jotee ñëpp dinañ def démonstration mais man je suis personne boo xam ne man ci si jaada laa koy defee bu ma toogee ñaanal ko yàlla moom ak waali bi dem defe naa ne loolu rek la soxla loolu mooy li nga xam ne ne moom la gën a soxla ca fa mu te man kuy julli rek ala kuli xaal man bëgg naa la ndax man du ma jugé nit selon melokaan bi nga ma wan. nañu gën a respecté artistes yi jox leen seen gëdd xam na ne ay doomu aadama lañ ndax yàlla mënoo judd rek mu ne la tey lii ngay doon da ngay judd. yàlla ne la lii ngay doon kon tey jii koor bu waay nekk rek président danseur. ak jaay sax gerte ci buntu kër gi yàlla moo ko namm ci yow kon nag ci mémoire ñu ngi ñaan kulli artiste ak kulli jullit sax. nañ ko bàyyi mu reposer en paix. Mhm. lépp lu waay di wax ci moom xamal ne incha allah di nga ko fekkee doomu aadama la dafa metti yaayam di dégg ay wax yu metti yaayam li ko li muy dund rek doy doy na donc suñ ko boolelee leneen ci doomam day gën a metti ala kulli aal. maa ngi dégg moo tax ngay wax xarit dafa kenn wóoratul kenn affaire yooyu. ay non man duma ma du ma wax ci loolu parce que li may li ma tax a jóg tey moo jébbal euh, sama njaal Aziz ndax tey ji média bi gis na àddina gis na dafa mel ni tey élection lañ doon dem ñëpp taxaw di xam fan la réalité euh, fan la euh, justice di jëm justice nag fi mu jëm woolu nañ ko suñu justice réew xarañ nañu am nañu macha allah Pastef ku leen déglu rek xam ne ne dëgg-dëgg li ñuy liggéey xam nañ ko justice rek moo mën a jugé ñi nga xam ne tey ñi ngi teg nañ leen loxo mais man li may jugé sama moroom mu ak euh, ki nga xam ne ne amoon na cofeel ci man ma nekk secrétaire général am association moo ma tax a ñëw tey euh, moo tax ñu jébbal euh, li nga xam ne ne mooy njaal bi man Pa Moussa président ak ñoom day géey ak ñëpp nga xam ne tam teewoon nañ fi parce que c'est normal ñoom ñu jiituñu fi ndax ñu Touba lañ nekkoon kon nag ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla na xippee aljana di wax nañu gën a waat artistes yi te xam ne ne ñoom ñoo leen di bégal dëgg la ku ci nekk yàlla mu ngi lay jox ci li ngay yëngu ci sa sutura nañ leen respecté parce que bu ñu defee lii dañuy vexé artistes yëpp waaw ñu ngi gërëm nag daanaan euh, yi daal dëgg-dëgg ay tarbambaay yi nga xam ne ne bëggoon nañ ko euh, ànd ak moom euh, di ko dooleel euh, Coumba Gawlo ñu ngi koy remercier de passage ndax def na loo xam ne ne kulli ndaanaan tamit waroon na ko def waaye defal na ko porteur de voix yëpp ñi nga xam ne ne ay artistes lañ te Aziz jot na contribuer wu ci seen liggéey macha allah ba gis nga tout récemment clip yi nga xam ne moo doon xew yëpp ci jamono Aziz moo ko doon joué kon Aziz amoon na talent yàlla defoon na ci moom respecté ay magam valoriser ñu xam ñun ñooy kan ndax nag euh, tarbiyu nañu kon nag yal na ko yàlla suturaal euh, ni muy suturaalee dugub mu xippee aljan jërë ngeen jëf balaa ñu la bàyyi nga dem ndax da euh, naa justice def liggéeyam

maam ci kër Xadi maa ngi naa xoolee jole maa ngi de waaye xam naa fi ne gisul dara gisoo ma da ngeen sonn garaaw yaa lii man daal lii nii fa métti fa métti yaayam ji gis ngeen yaayam yaayam a ngi fay dem ngeen gis ko na trop ay ndéygéey bu ñëwee dem benn yoon. bilaay maa la raw dafa metti metti na trop sax wallaay maa passé na mën naa la gisee. waaw wax na dëgg nag. waaw jëkkër moom day mottali daal. maa amoo benn xaritu papa amoon xaritu papa mën na ko am ba gaañu. aw ma chance. yàlla saa deux minutes la seeral sa diggante ak Aziz daa waaw dañuy point de presse léegi sëy sëy yaa

lépp jàmm. waaw ah, ñu dem yéen la ñuy déglu. yow léegi mënul def ñu dem waaw. Ah, ñu dem ñu dem. yaa ngi jàmm waaw. ana Dias Dias waaw. gars yi boo leen arrêté tuuti bu baax

weer mbokk yi boroom naaru góor yëgsi na kii tax gannaaw sunu boroom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina usmaan Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di toll nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa boroom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog bank CBAO bi Merina ci wetu daral bi. mën ngeen a jokkoo kabinem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19.